commencé de la éloigner de l'essentiel. non moi, daf me contraindre deux mois, bokkul ànd ak nag loolu yëpp je suis l'homme politique qui tourne le plus du dégg nga fi nemmeeku tour du gis nga ma ci àll bi may wër loolu moo leen tiital ñu ne nañ ko gaaw arrêté ndax ñun bi ñuy door politique dañu ne woon ñii mooy fonctionnaire yooyu rek mënuñu dem fenn ñu bërgal ñu ñu dox dox dox affaire bi commencé meññ ñu ne parti facebook la yaa ngi fàttaliku ñu dem dem dem affaire bi commencé gën a tar ñu ne ah ñii suñ leen bàyyee du truc nañu nañu fexe ba dagg bopp bi nañ ko dàq ci fonction publique bu ko defee dina tal utum dépense lu dul nekk fi naan day politique. ñu dem dem dem 2019 yàlla may ñu lum ñu may ñu nekk troisième ñu ne affaire bi mi ngi nekk danger donc il faut ñu complot pour pour pour pour liquider ko ñu ña li mu am yëpp tam ci grande ville yi lañ ko am ma commencé dugg ci àll bi dëkk dëkkaat bu ma dugg. waa village bi yëpp génn curé dina génn euh, euh, imam dina génn chef de village dina génn waa dëkk bi yëpp génn tertu ñu tertu boo xam ne defe naa mos gisagoo benn leader politique buy def tournée tournée rurale am loolu ñu ne kon nañu génn dossiers yi gaaw pour mu koo téye balaa loolu sax dañ ne nañ ko nañu nañ ko gàllankoor Joal lañ ma commencé di sànni lacrymogène bi ma commencé département de Mbour ba keroog Tivaouane ñu ne nañ ko gàllankoor kon ñun dara mënuñoo divertir l'essentiel parce que man tourné naa tourné wu ma li ma yàlla may ci sénégalais xam naa ko dem dem dem dem dem fas feddali kóllë rek moo ñu tax a jóg mais lii yëpp wax nga dëgg li ñuy organiser nii yëpp lu ñuy tënkee Ousmane Sonko ba du dem dajeeg sénégalais yi te xamuñu Ousmane Sonko su demul ci sénégalais sénégalais ñooy ñëw ci Ousmane Sonko maa ngi ciy sant yàlla bu baax moo tax suñu programme politique moom

def xaw ma ñaata kilomètres ne j'ai fait tant de kilomètres dama bëgg a ñëw rek pour gis la Sereen Lamé jël photo dem te man dew ma foofa kon ñun ñu ngi sant yàlla gis nga dafa am loo xam ne bu ko yàlla defee nit ne tey rek ma dindi ko da sonn moo tax ñu ngi sant yàlla ci lim ñu may ak lim ñuy jàppale boobu ba léegi. li ñu desee si euh, temps bëriwul euh, fan yii dañoo dégg journaliste bi di Madiambal Diagne mu ni dafa jóg sa nekkatoo sa kër génn nga euh, dem ci bois sacré yi après mu ni weer yee passé àndoon nga ak lu toll si treize personnes nga dem seeti Salif Sadio mu nekk chef euh, rebelle loolu naka la demee Ousmane Sonko. xam nga Pierre euh, wax dëgg yàlla niveau bi ma toll nga may laaj ay question yoo xam ne ci yenn nit yi la jógee je suis désolé mënuma cee sori dafa am loo xam ne Sénégal yi tontul nañ ko seen bopp bu yàgg. bëgguma jox importance yenn nit ñi daal waaw am na loo xam ne amul kenn ci Sénégal koo xam dina ko dégg jox ko crédit xam nga li am solo li li important ci Sénégal aujourd'hui gis nga Macky ñu koy waxal ñëpp amul kenn ku Sénégal yi nawul loolu moo ci doy waar seetlul rek seetlul ci kenn koo xam ne Sénégal yi nawlu lañ moo tax ñun soxlaatuñu tontu ci ma toll nii niveau bi ma toll soxlaatu ma tontu yenn waaw sa diggante Barthélémy Dias nag naka la demee jamono ji est que diggante bu yàqu la wala bokk euh, c'est toujours possible ngeen retrouver waat loolu du fii laa koy waxee xam nga man kenn mësul gis ma toog <laughs> ma tudd Barthélémy Dias seetlu loolu euh, su ma ko tuddee c'est en bien mais kenn mësul toog dégg ma ma ne Barthélémy Dias lii lu bon wala lu bon te li ma wax rek Barthélémy Dias Barthélémy Dias man Ousmane Sonko la xamna sama bop xamna sama nibu xamna limay géré donc du fi lay waxé ay digganteeg Barthélemy Diaz wala yu démé non de manière générale Pierre dama bëgg nga jàpp leen seetlu nga ni nit ñi ñoy wër les plateaux les leaders politiques am Ousmane Sonko andi Ousmane Sonko mais man dama dégg ma tuddu kenn man ben adversaire la nit ñi ñoy wër suba ba ngoon jot duma tuddu leader waye yow mun nga xam am Ousmane Sonko d' ailleurs leader yu ba dañ jàpp ni lii may wax ni jagleelu ma ko Barthélemy de damay wax de manière générale dama ne nit ñi doo toog jour wala semaine te doo gis benn acteur boo xam ne benn acteur politique boo xam ne dem na ci plateau jàpp nañ ni tey ku bëgg ñu déglu la ci faut nga tudd Ousmane Sonko mais doo toog ba dégg Ousmane Sonko tudd un leader politique. yow la ñu jàpp naa ko. da gis sax dem naan waaye il n'est pas le leader de l'opposition il n'est pas mais man nee naa leen du ma leader opposition bëgguma xanaa loolu yomb na waaye nag suñu toogee yenn journalistes yi ngeen ne il est le leader de l'opposition France 24 ne leader de l'opposition TV5 mais man sama yoon ci gis nga àdduna boo bëggee noppalu li yàlla may nit nangul ko ko man lii ma doon du sama liggéey yàllaa ma ko may yàlla rek moo ko mën a dakkal boo bëggee noppal li yàlla may nit nangul ko ko du wàññi dara ci li nga yor waaye boo bañalee nit di ko yàlla may ci xol bu naqari ngay dëkk te jaru ko man yéenewuma kenn lenn doo toog ba dégg Ousmane Sonko am na ñu ma fi tuumal jiiñoon sax ne dama leen attaqué ci élection yi maa yàq seen ba amuñu député nangam nangam te pourtant te pourtant toog nañu lu yàgg façon attaque bu ne di ñëw tontuwuñu nee nañu ñun dañoo complot ak Macky Sall pour que ñu mun a delloo si suñu liste titulaire dañoo def deal tontuwuñu ñu doxaat tuuti ñu ne waaw ñun ñooy wax xale yi pour ñu génn ñu ay ta suñuy doom néeg néeg ni bu benn xale génn tontuwuñu am nga yow yaa ngi opposition maa ngi opposition may def sama activité bokk ma ci bokk buggoo ci bokk mais mandul ci samay affaire ñun am nañu ku ku fi woote opposition war nga am lu la doy ci naka la ñuy def ba jàkkaarloo pouvoir bi mais opposition yoo xam ne la ngay passé sa temps ci xeex soo ko moo ëpp li ngay passé sa temps ci xeex Macky Sall te soo ko bi ngay xeex du la tudd du la taas yéegu la te it bu la leeree kii ma topp di dóor di dóor di dóor suba sax ma xalam ko te ngaa bañ a dóor nga attaqué wax wax wax. waa ji wax benn yoon nga ne yàq na sama campagne kon kay xam nga ni ci waroo ko woon song moo tax man du ma tudd kenn opposition bi nit ñee wër rek ku dem ci plateau ñu ne la Sonko waaye Sonko ceci non Sonko warul def lii Sonko warul dem fii Sonko na jaar fii Sonko na lii Sonko la mais man du ma leen du ma nga def nañ suñu émission ba léegi yow yaa fi tudd may la man du ma ko waxee fii. waaw parce que parce que damay sant yàlla.

nit mun na ma songu attaqué ma wax ma lu kenn xamul mais dès lors que nekk na ci opposition parce que si jàmmarlu man loo loo xam ne sama mbiru bopp la bàyyi naa ko parce que réew mi naa ci moo tax ñu bëri dañu comprendre sax yenn yi plateforme yi fi am yëpp dajale opposition bi ma nekkee politique ba léegi ñi fa nekk ñëpp xam nañ lan moo ci sama taxawaay dama ci dem ba jeex pour loolu mun a am après nag nos divergences nos petites divergences nos petites bu dem jotee ku nekk xool nooy demee toj sa bopp jarax nekk suba ba ngoon jot am Ousmane Sonko Ousmane Sonko lu mu def nga commenté te yow doo def ba Ousmane wax ci waaw xanaa léegi loolu. waaw xam nga dafa am sujet d'actualité yoo xam ne tey bu ma may occasion toog ak yow fii il faut ma poser le ko. Mm. Euh, Barthélémy Dias nee dialogue bi ba muy dem di rencontrer président Macky Sall informé na la avant muy dem ba mu génnee ci agence ba aussi informé na la est du ma ko wax fii. man dépassé naa foofu. yéen aussi dafa na loo xam ne tey mérité woon na sax dam euh, cour d'assises maanaam crime la def en fait pour yow. ah kon kay moom lañ ko xam nga dama ne la waxu Barthélémy fii laa koy waxee man dama am leneen lu ma nekk loolu laa tal fi mu toll nii donc munoo tax fexe ba ma nekk di naan Barthélémy nii xalifa naa euh, euh, kan ak kan. Idrissa Seck ñëw na si opposition bi nee na chef de l'opposition. na jël. chef de l'opposition monsieur Idrissa Seck c'est tout amoo ci commentaire. pour ñu jeexal kañ ngay dellu Dakar. Euh, balaa ngay egg foofu dama bëgg a am lu ma leeral tuuti ci Idrissa Seck nee naa du ma wax lu bëri ci nit ñi waaye depuis quelque temps dafa nekk ci média yi di wax ma jàpp ni am na loo xam ne kilifa moomu ko kilifa moomul bis mu ne nga ne dem dem naa seeti diw. wax naa ak moom lii lii la ñu lekk lii la ñu jullee lii la ñu tari dem naa seeti diw dina dina dina am fu muy toll koo seeti mu tëjal la buntam man ma leeral lenn ci Sénégal parce que dafa bëri ñu ma ci interpellé Idrissa Seck dafa annoncé woon ne day wax suma jumul le 27 le 27 mars ma toog toog toog sama benn xarit ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp woo ma balaa moom am na keneen fu ma njëkk a woo ma ah Idrissa Seck de moo ñu woo ne nee na dafa dafa bëgg a gisee ak jaar na fu nekk nag mais mënul fexe ba gisee ak yow ma leen sëñ bi leen bàyyi leen noonu man pareeguma pour gisee moom te xam naa li mu annoncé ni day wax la 27 la bëgg a ut matière mu yóbbu te bëgg ma mu yóbbu fa sama tur.

maa ngi teg sama xëdd samay a dugub xam nga man damaa bëgg beñe dugub teg sama beñe dugub sama café bay commencé xëdd moom mu ñëw fëgg ci bunt bi sama soxna ñëw ne ma ah kii de nee na Idrissa Seck gi ci suuf ma ko lan Idrissa Seck mu ma ma ne ko lu def heure bi mais heure bi ñëpp a seen kër di xëdd ak seen njaboot lu muy def fii heure bi ma ne booy bi mi ngi nii mu ngi nii mun nga ko laaj ma ne ko demal nga ne ko du ma recevoir damaa convalescent demal mu dem tourner di dem mais bu ma dugaté sama sama bir ne lima togn moy sama xolu julit ak sama xolu yermandi. ma tok ma xalat mané mag mu togn bayyi njabotam ci heure bi bayyi yitteem yëpp ñew fi né damay seet Ousmane Sonko amna liko li war na ñor ko bayyi mu dem ni dina ñaw ma dogalé xalé mi ngi won ci escalier mo mu ñew ma ko anam mu ne ma àbb na sijaada ba mi ngi lal ci buntu kër gi di julli ma ne ko non dugal leen ko ci biir bu ko bàyyi ci buntu bi mais nee ko maa ngi julli su ma jullee ba pare dinaa wàcc ñëw seet bi mooy doyee bi ba pare ba def may def yëpp ma wàcc fekk ko foofu ma ne quoi ah, sëñ bi mbaa jàmm waaye jàmm laa et cetera ba déglu ko mu expliqué expliqué réew mi fi mu toll ñu ko seetaan nii man maa jël sama responsabilité démb maa ngi ndogoo ci président tey ma xëy ñëw fii parce que lii yow waroon wax lii kii waru moom def warul def lii troisième mandat ceci Abdoulaye Wade cela nangam nangam ma def ba mu pare ma a ko ah d' accord waaye nag jàmm moom ñun ñë ñëpp xam nañ ci lan la dépendre ñun ñëpp xam nañ kii yee fitna ñun ñëpp xam nañ kiy dóore kiy tëjee ak kiy def li muy def boo delloo ci moom waxtaanal ak moom bu bàyyi yooyu muy def jàmm dina am ci réew mi li ci des nag waaye bu la invité 4 avril na nga ñëw. parce que néeg néeg nii ma ko déet man dama bokk ci coalition buñ ci tollee nañu laaj dañuy wax suñu biir waaye man damaa xaw a tawat nekk convalescence mais su ma doon def 4 avril sax Ziguinchor bi nga xam ne maay meer ba daaw ma demoon fa 4 avril fa laay dellu bokk ci 4 avril bi noonu noonu mu jóg ma gunge ko mu ngi dem sax maa ngi koy tooñ nekkoon waaw mbaa jot ngaa xëdd mu ne ma ah fii laa ko yaakaaree woon te ma ne ko ah kon waroon nga yëglu ma ko mu dem sama xolu yërmande ak sama xolu julit moma ma waaw parce que sudul won limu ñew sama kër heure boobu du ma musa ak mom nan damay tok waxtaan. daa jàpp ni erreur nga liko recevoir. non du erreur parce que je n'ai rien à regretter mais japp na ni genn fofu wër fu ne nga dem tok fa am sonko andil sonko jaru ko c'est-à-dire ku yoron sa carrière politique dem ba yak ko ba tay sénégalais xol na bëd bët bi ñu xol nga jekki jekki bëgg a dekki jàpp ni nekk ci deru Sonko moo lay delloo siwaat da ngay nax sa bopp man ñoom ñëpp ñoom ma mag fuuf dañuy politique man xalaat maa ngi doon dawal puna kon am na yoo xam ne jaru ko ñëw di xaste di wax lu ñaaw si nit parce que li ko andi yëpp nag xam nga président Macky Sall raam ñu bëri ñu ko xelal ne ko sa face à face bi ak Sonko yàgg na métti na te baaxul ci yow li ñuy wax bipolarisation vie politique bi baaxul ci yow ndax bi ngeen dooree ba léegi booy baa ngi monté yow yaa ngi wàcc léegi nag il faut nga kase ko te bokk na ci ñu ngi koy kase mooy il faut nga introduire d' autres acteurs pour ñu ñëw contrebalancer. ñu joxe ñu joxe carte yi yu bëri ngay gis ni looloo ko andi waaw xam nga bi ñu commencé seen yooyu ba léegi tey la bipolarisation bi gën a tar. parce que nee naa lu yàlla def caaxaan du ko dindi man le le peu que li ma yàlla may ci politique yàlla ci boppam mooy toog ba ne rocci naa ko mu jóge fi mais du ay combine du ay naa dugal kii comme ça mu nekk alter ego Sonko wala nangam nangam kon dafa am yoo xam ne jaru ko wër suba ngoon jot am Sonko andil Sonko jaru ko ku ku bëgg nguur demal jàkkaarlook Sénégal yi nga andi sa programme. wala su dee kii nekk ci nguur bi tey ni mu ko yoree du yoon nga am xalaat yu wuteeg moom demal nga ne sénégalais am naa xalaat yu wuteeg moom te démontré ko waaye nekk ci lii ñu nekk nii amul njëriñ te man yàlla may na ma plus ñu may attaqué plus sama sama sama maqaama di yokk ci sénégalais doon loolu maa sant yàlla bu baax def nañ tout pour yow xam nga ni li ñu def ak man mosoo ko gis ci Sénégal te tey bu ñu demoon élection bu ñu demoon élection balaa midi carte loolu du sama mérite mbirum yàlla la maa ngi ciy sant yàlla. waaw le temps que may ñëwaat sama dernière question à propos de médiation gis nañu ne xalif général des Mourides yónnee euh, président de la République euh, Serigne Bass Abdou Khadre nekk le son porte-parole est-ce que yow à votre niveau kilifa diine yi ñu ngi lay saisir dans le sens ñu apaiser situation bi. Euh, loolu mënu ma cee sori mënu ma cee sori sama diggante kilifa diine diggante jàmm ak salaam. waaye li ma la wax rek man ni may or ni ma fonctionné du ma koo xam ne damay dem ci kilifa diine di leen bëgg a impliqué ci loo xam ne peut-être ñoom bëgguñ cee impliqué waaye j'ai tout toujours manifesté sama disponibilité teg sama couverture ci kilifa diine yëpp nag euh, loolu laa ci mën a wax euh, mënuma cee sori lu bëri parce que xam nga mbirum kilifa diine dafa sensible gërëm aussi Sénégal yëpp mais di gërëm aussi ñi fi teew ñi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte jóge fu sori leader politique yi defe naa ñi ci mënoon ñëw ñëpp ñëw nañu. bul et abonné bul et abonné bul et abonné.